une euh, sécurité sax euh, balaa nga koy xam ñuy or bi mhm. gis nga dispositif sécuritaire bi entourer le convoyage de l'or président de la république du Sénégal amul amul dispositif sécuritaire non génnee or bi euh, ministre bi nag du ko fait de façon inopinée parce que nous savons dem ñu xam mais un jour sénégalais Sénégal, ko gis gis dispositif draconien yi ñuy jël rien que pour sécuriser or nga pour sécuriser suñu président sax duñu jël dispositif yi mel noonu ba nopi or bi Sénégal moko wara a des du yoon ay australiens ay égyptiens ay sud-africains ay maliens ay maliens ay maliens amna ay maliens yo xamni ni prête non la dañu yor ay mine fi ay autorité politique kon ni ma amé won ci y non noonu la amé ci or bi ci or bi la ëppee d'accord lolou nañ ci ñew un jour nañu wax ci gisement wu Tomboronkoto voilà foofu la tout à l'heure. en ah, Tomboronkoto mhm. koku c'est à l'entrée de de de de de Kédougou d'accord buñu jox ben malien il y a toute une histoire derrière mhm. donc euh, où en étais-je prête non yi non non non non pas c'était c'était juste une une une digression. système de sécurité donc mhm. or je disais d'où étranger yi ñoo le war a état du Sénégal m'a convoyé Orbi. or c'est vrai d'un def les c'est vrai fait bon de peser. c'est vrai fait certificat d'origine c'est vrai a am certificat de non criminalité loolu yëpp mooy këyit yi war a accompagner or bi ak euh, euh, les spécifications yi test yi joxe donc loolu yëpp gannaaw loolu yëpp bu amee sax mais warul dugg ci avion tubaab yi parce que doo xam la ñuy embarqué état du Sénégal moo war une liaison aérienne. mën na nekk mais bañu mën a nekk. d'accord parce que di nga wax ci dispositif yi ñu ñuy jël ak lim leen jaral. non naka la ñu ah. mën a naka la ñu mën a contribuer ci loolu ñun état bu bees. kaay ma wax pour mu yomb. mais am na sénégalais yu exploité yu am gisement euh, euh, foofu Sabodala mais ñooñu ñu ngi seen jet privé ñu ngi fii aéroport Yoff ay jet privé avion yu ndaw yu ngi gis ñu foofu. Ah am na ci yoo xam ne ay sénégalais ko moom état mënu ko am benn benn avion boo xam ne c'est la la navette mais mais mais je crois que nous devons encadrer la devons sécuriser ñom produire 5 points de livraison Nous, ñoko fay acheminer comme ça ñu xam lan la mais nous ñu sécuriser ko mm. parce que gis nañ fi aéroport euh, en 2019 nous dog aménager 2019 ou 2017 je crois. Mm-hmm. Euh, gars 520 kilos d'or douane japon, parce que xamuñu woon waruñu woon jàpp or boobu dafa doon dem mais ci diggante bi or bi manqué 19 kilos loolu aussi il faut ñu bañ a dugg ci yu mel noonu nga xam état du Sénégal même drogue nous ñuy jàpp ay port da ngay gis ñu ni 80 kilos manqué na ci loolu amoon na fi mm. ci benn xaay ay tonnes nous ñu ñu 80 kilos manqué na donc il faut aussi au euh, euh, Sénégal ñu def tout effort pour mener l'air, pour mën la transparence mais je crois que nouvelle autorité c'est un discours yi ma dégg ñoo war impulser jubal boobu ak parce que au fur et à mesure je me rends compte que ces mots ne sont pas vains donc loolu buñ ko bu ñu mënee sellal encadrement boobu dañ ko war a sellal ñun ñoo ko war a jël en charge loolu ci souveraineté la bokk mais tubaab bi ñëw exploité oram ni temps laa exploité yow yow gisoo ko amoo fa représentant yow ba jamonoy Ablaye Wade ñaari douanier Jean-Jacques Nanga alors directeur général des douanes moo def benn circulaire boo xam ne am naa ko dinaa leen ko partagé. parce que hmm. yëpp sóoraale wu ma ko woon. pour sénégalais yi gis ko. dinañ ci ñëwaat pour que Sabodala am représentation douane mën nañ ko dig internet yi pour. Euh, seen mais mais prochainement dinañ leen dinañ leen produire. Euh, circulaire boobu. voilà 2009 la ñu décidé ni léegi Sabodala dañ fay bàyyi benn benn douanier mhm. nga xam ne bu ñuy peser or bi bu ñu koy contrôler ak yooyu moom moo fay nekk mooy embarqué ak avion bi deuxième douanier bi xam nga kan la mooy le directeur des douanes de l' aéroport de Dakar Yoff boobu jas ubbeeku kon directeur aéroport Diass ak le représentant de la douane bi nekk Sabodala ñom ñaar kessé ñoo séq affaire or bi ñaari nit loolu wóor na. doy war waar. loolu leer na. loolu aussi bu fekkee ni changé wul autorité yu bees nañ ko xool. d'accord circulaire boobu dinaa ko Produire euh, internet. yi. mën nañ ko dig seen éco bii di ñëw. waaw ah. waaw seen éco bii di ñëw. voilà jeudi à partir de 18h. Ah. depuis bi ñu commencé produire or 2009 rek la ñu xalaat douane def liggéeyam. d'accord ba noppi. Mhm amna ben société de sécurité bo xamni ñom dañ ko tudd ci circulaire boobu te waruñu ko won tudd té loolu du sécurité parce que bu doon dëkk ñak yi société boobu gaay dañ koy top def ko yefu yefu yefu yefu yefu bandi hmm. mais ci circulaire douane bi dañu dem ba tudd société bi nga xamni moy mooy convoyé or bi diggante ay koofram mom hmm. ak aéroport su or bi di dem su fekkee ni transporté wuñ ko directement ci avion dañ koy fanaanal ci société de sécurité boobu man maa leen bañ a mais ñun nit xam lañ mais ñoom dañ def erreur bind ko ci circulaire bi. circulaire bi suñ koy publier sax dañuy effacer parce que aussi orienter dañu am société de sécurité donc ci la li tax ministère de l' intérieur comme des forces armées ay kilomètres kilomètres la. Mhm biram Souleye mu ngi dem Sabodala légui autorité yi dañ ko préparé mom ben plateforme bu muy nek bo xam ne day tiim affaire yi pour baña gis ñi yor brassard rouge ñu sol lu di revendiquer mais ñaan bu fekkee ni ministre bi dégg na ma parce que émission bi waroon na gën a teel parce que ñoom ils sont déjà certainement sur le terrain mm-hmm. mais mënuñu visiter lépp dans la matinée nañu fexe recueillir revendication travailleurs yi nga suis dañ ma parce que ma ngi len doon wax trois fois 8 heures de temps lañuy ñetti huit heures de temps def pour boucler les 24 heures parce que liggéey bi non stop la amul arrêté non stop amul arrêté légui dañ ko def ñaari quart de douze heures de temps doomu nga liggéey 5 heures du matin ba 17 heures loolu daf metti mhm. loolu ci li ñuy jàmbat la bokk parce que ñetti kaar la woon boo 8 heures de temps di nga noppalu 16 heures de temps doog a monté waat. doog a monté mais 12 heures de temps ngay liggéey boo wàccee 17 heures 18 heures ngay àgg sa base 4 heures du matin nga jóg pour préparer wu ba noppi dañ leen ay téléphone dañ lay tegal ay caméra de surveillance ci biir dëmpër yi mooy camion yu ngand yooyu di di charger minerai bi mhm. te am na ci ay conductrices ay conducteurs yu jigéen ñoo xam ne bu ñu tàngee sax duñu ñu mën a féexlu parce que tubaab bi dañ leen di gis dañuy gis seen cër dañuy gis seen lépp voilà dañ leen tënk te loolu bokkul ci ci ci règlement bi nga xam ne ci contrat yi nga xam ne moom moo leen tënk mhm. kon tey jii 12 heures de temps yooyu ñoom dañuy liggéey quatre heures par semaine mais seen bulletin de salaire quarante heures moo ci nekk quarante heures. quarante heures. kon dañ leen di sàcc quarante quatre heures yoo xam ne duñ leen ko fay. ba noppi duñ leen fay heure supplémentaire. Mhm. duñ leen fay ay risques prime de risque. am na benn poson poson laa wax de bu tudd cyanure boo xam ni sa catu baaraam nii boo ko cappee ci weer bu ñuy naan ku ko naan ci saa si lay dee. te dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñuy loolu moom la ñuy traité or bi ñoom dañ ciy am ay stock te manipulation boobu dafa ànd ak ay risques tubaab yi dañuy am risque cyanure mais ñun amuñu risque cyanure amuñu risque cyanure d'accord amuñu prime de risque amuñu heure supplémentaire amuñu dara loolu ñoom ñu ngi leen koy tawat ba noppi dañ leen ameel ay arriérés de salaire yu bëree bëri bëri bëri ñoom bu ñu feebaree sax boo feebaree juróomi fan boo ñëwee dañ lay dagg juróomi fan. ci ko xam da ngay liggéey quatre vingt heures ñu bindal la quarante heures. donc loolu bokk na ci seen ay ay ay taw yoo xam ne ministre bi war na ko bàyyi xel même bu ko déggul tey tey tey bu ko déggee mu mu mu mu mu lijjanti merci beaucoup hmm. am leneen aussi faaw ñu wax ko tout à l'heure yaa ngi wax ni ministre bi dem na fa wax na alerté na hmm. mais aussi. alerte bi jëm ci biirum contrat yi naka la war a demee Clédor door que toogoon nañ fi di waxtaan ñu ne. 10 mm-hmm. <coughs> pour cent yi nga xam ne moom la ñuy. Mm-hmm. la am ci mm-hmm. mbir mi sax. daanaka dëgërul daal. léegi euh, jëm ci mbirum contrat yi naka lañ ko mën a xaymaa ba mu mën a méngook li nga xamante ne ministre bi wax na ko démb ba mu àddoo jëm ci or bi di xelli foofu. waa léegi man li ma gën a kontaan est-ce que xam lan la. Ngagne Demba Touré dama dégg discours am bu ñu def passation de service. gis ko benn brique en or kon ñoom gis nañu affaire bi xam nañu affaire bi jox nañu leen explication am nañu estimation yi am nañu données yi mm-hmm. te SOMISEN mooy représenter intérêt Sénégal en matière minière comme ni ko Petrosen di defee ci gaz ak pétrole mm-hmm. SOMISEN nag contenant la bu amul woon contenu ndab la bu amul woon dara léegi je crois que ngañ Demba Touré dina ci def dara boo déggee son discours de de passation de service mm-hmm et c'était bien que moom nek sur le terrain parce que lolu responsabilité am la kon walam wàllam. Mm-hmm. wàllu Somisen laa bëgg a wax pas walu Ngagne dem Touré wàllu Somisen nga xam ne mooy wàllam rek mom mm-hmm. parce que mom mooy taxaw léegi suñu intérêt. c'est pas le ministre. c'est pas le ministre c'est lui. voilà il faut que mu leer. c'est lui hein. voilà mm-hmm. kon tay euh dina jéem a té xamna ni dina lijjanti mais 10 pour cent ñu jot jaay dama koy collé motif Mambey parce que nous sommes Niang sonaloon nous leen fi suñu 10 d'or, nous or un ñu jaay de ko maintenant c'est le moment de le prouver Nous avons ci rapport ITIE pour 2017 kon tey